dañuy ñëw tey gunge si suñu mbokk maa ngi ànd ak papam papa mi ngi nii euh, moom ñàkk na jabaram ak ñaari doomam donc euh, lu mel nii mënuñu toog di ko setaan famille bi onze personnes la ñu woon ci onze personnes yooyu huit personnes gaañu nañu ñàkk nañ seen bakkan am na ñeneen ñu nekk CTO ñu leen di considérer comme des grands brûlés Euh, lu ñuy njëkk a ñaawlu mooy taxawaayu état du Sénégal mais biir laa du wax ci ma ciy dut baaraam président de la république lu ñuy xaar ci président de la république du tweet tweet ñëpp mën a tweet lu ñuy xaar ci président de la république mooy mu jël ndogal bu ci njëkk mooy lépp lu bonbon di euh, bonbon gaz bu total di commercialisé nañ ko retirer ci marché bi parce que bonbon de gaz yooyu euh, daanaka bombe la musiba la. bombe la donc bu ci tegu je crois que chef de l'état su jëloon décision boobu bu ci tegu mooy chef de l'état wane tamit taxawaayu état ci wetu famille bi xew-xew bi bu mu amee ba tey sentiruñu état bi euh, dañuy gis chaque fois premier ministre déplacé wu wala président di yónni délégation parce que am na ku ñàkk benn mbokkam ci benn euh, ci famille am fii famille la bu nga xam ne ni ci onze personnes les huit sont décédés je pense que lu mu bon bon bon premier ministre su mënulee déplacé wu au moins ministre de l' intérieur ñuy ñaawlu taxawaayu ministre de l' intérieur di ñaawlu taxawaayu ministre du commerce parce que kenn ci ñoom ñaar kenn jëlul ci décision bu euh, buy wane ni que état euh, jël na ampleur euh, du désastre et je crois que il faut qu'on se comprenne su ñuy demee ba am ay njiit njiit ñooñu ci ñoom la ñuy yaakaar mën a wéeru ci ñoom en de en de en de te je pense que au-delà de loolu tamit euh, di interpeller le groupe Total euh, Total ñoom dañu noo xam ne ni que ñun lu ñuy xaar ci ñoom du communiqué de presse ñoom ba ñuy génne seen communiqué de presse ñoom nangu nañu ko am nañ ci responsabilité loolu mooy dëgg maintenant nag euh, maa ngi ànd tamit ak maître Cheikh Khoureyssi Ba am na am na yeneen avocat yu ñuy contacter fii Dakar dinañ porter plainte contre Total parce que lii nopp mënu ko dégg xel mënu ko nangu ça veut dire mënuñu nangu lu mel nii di am te amul benn responsabilité bu ci tegu tamit may yëgal groupe Total que ci semaine bi dina am avocat bu leen di saisir euh, d'une plainte en France parce que suñu xalaatee ne que fii Sénégal du mujjee fen tugal moom dina am fu muy mujjee parce que c'est une société française et ils ont euh, des responsabilités à assumer aussi bien en France euh, qu'à l'extérieur bu ci tegu nag foofu lay daanelee di ñaax Dakarois yi ak Dakarois yi bàyyi leen di jënd bonbonne gaz total loolu mooy dëgg bi wax ji duñ ko rey parce que amul beneen bonbonne bu fi explosé kenn ñëwul ne damaa jënd benn bonbonne Touba gaz mu explosé wala mu def lii donc bombon gaz total yi nañu arrêté di ko jënd nañ ko boycotté ba ñu xam qu'est-ce qui s'est passé te fu may daanelee nag mooy di wax waa total euh, famille bi mi ngi nii góor gi ñàkk na jabaram ak ay ñaari doomam. metti na lool ñoom suñu jàppee ni loolu am ñu ci responsabilité dañuy nax seen bopp lu ma leen di wax daal ci gàttal mooy nañu jéem a rapproché wu ci famille bi jéem a ñëw bu leen ak jéem a xool lan la ñu mën a def pour tubaab di woye arrangement à l'amiable parce que dans le cas contraire suñu balaa ñu génn ci weer gi dañu fas yéene organiser manifestation bu am solo dajale mbooloo bu jéggi dayo ñoo taxaw seen buntu siège ba ñu mën ba ñu mën ñu wax ñoom lan mooy seen taxawaay ci acc euh, ci crime bi parce que lii du accident accident mooy lu fi jot a am ñu ne bon accident la mais dafa am amaat amatiwaat te xamatuñu est-ce que loolu du amati donc je crois que yu mel nii il faut que des les personnes acceptent d'assumer leurs responsabilités il faut pas que Total xalaat na ni que dañu génnee rek benn communiqué de presse mu yem ci loolu euh, lu nekk ñu ngi koy dégg ay est-ce que amoon na téléphone portable est-ce que amoon na fi ay euh, fourneau loolu du wax ji da ça s'est passé ça s'est repassé, et ça s'est reproduit encore. Donc je crois qu'il faut dans la vie assumer ses responsabilités et euh, comprendre qu'on parle ici de vies humaines. On ne parle pas d'autre chose que de vies humaines. xale bi gaañu tey doom doom la ci ci El Hadj Diouf mii. Mm. El Hadj Diouf c'est l'aîné de la famille. alors c'est le grand frère de mon épouse quoi xale bi gaañu tey sa euh, bàjjan euh, sama soxna Sagal Diouf bàjjanam la quoi. bon sama sama doom ak sama soxna ñoo njëkk gaañu après sama beneen doom gaañu après yaay yu la suite ko bon euh, léegi daal li ñu mën wax euh, xam nañ lépp ni mu demee jusqu'à savoir peut-être les euh, trucs de la de de de de l'instruction parce que il faut qu'on détermine niveau les ah niveaux de responsabilité waaw waaw ci olof donc euh, effectivement léegi xam nañ ci lu bari parce que ñu ngi ñuy wax lu bari parce que ci dëkk bi lañ dëkk ko ni ko ni ni ko monsieur le maire euh, Barthélémy qui a été là depuis le début avec euh, avec euh, Cheikh Cheikh Gueye aussi maire de Derklé vraiment ils nous ont d'une façon boo xam ne ni da ngay rus sax ci seen kanam quoi parce que vraiment ils ont fait ce qu'ils avaient à et puis de la manière la plus euh, euh, normale possible quoi alors li li ci li ci des mooy on a perdu un huitième membre de la famille parce qu'ils étaient onze à être euh, impactés par l'incendie bi ñu demee euh, ñu commencé di perte di perte di perte ba démb mu man dama woon rek pour euh, waxtaan ñu ne ma kii dee na Pape ne Babacar Diouf quoi mais mais mais c'est triste y a y a une famille qui a été décimée ah vraiment nga xam ne rien ne sera plus comme avant dans cette maison là mm-hmm. donc euh, qui voir pour euh, ne serait-ce que nous nous présenter des condoléances sax après les promesses peuvent peuvent se faire mais ils sont là et on, on les voit pas les les les waaw euh, ñoom euh, waa Total yi gisaguñu kenn ah gouvernement bi on a peut-être vu monsieur Faye qui était venu le lendemain du décès de mon épouse et, et, et de mon enfant mais après gisaatu gisaatuñu kenn monsieur le maire moom moom moo fi nekk. moom moom mii du du question dañ leen di wax mais il a fait ce la avait à faire ñëw na taxawuñu defal ñu jox ñu xaalis boo xam ne dinañ ci mën a déjà di continuer di faj xale yi mu jël engagement ne euh, après dina leen yóbbu euh, soit au Maroc soit en France bon léegi ñun sax personnellement on est en train de faire des démarches également parce que on a beaucoup de connaissances suñu mbokk yaa ngi foofu ñu ngi États-Unis ñu ne ñu def leen rek lu lu lu war rek ñu def ko ci donc euh, moom mi c'est vraiment occasion la boo xam ne nii moom lañu am pour gërëm ko moom le maire Barthélémy ak le maire Cheikh Gueye nga xam ne non seulement sax parce que xaalis bi neex na trop mais ku lay ñëw di la nemmeeku bës bu nekk mu di la wax massa ah, parce que affaire bi ñi ko gàddu yëpp moo tax mu oyof ci ñoom ñi le nombre de personnes nga xam ne ñoom ñoo ko gàddu loolu la tax mu oyof te bu oyofee wax dëgg yàlla euh, yëguñu ko quoi. moom ñoom ñii nag ils ont joué un rôle extrêmement éminent waaw loo xam ne ni daal wax dëgg yàlla euh, yëg nañ ko ci suñu xol ko waaw parce que ils sont venus euh, xam nga xaalis du doy mais danga nga koy mottali ak ay wax te wax yooyu wax nañ ko ils ont fait. Euh, ce qu'il devait faire ba nga xam ne daal ñun kontaan nañ ci ñoom trop trop trop bon c'est vrai que on naa ni vu le premier ministre euh, ni ni ni le président de la République man sax j'ai de relation qui me disaient que oui le président buy jógee fële dana dina ñëw mais gis kenn gisu ko ba léegi alors bon mais mais ñoom ñii euh, wax dëgg yàlla mention spéciale waaw dama leen koy séddal ko wax dëgg yàlla parce que nit nit ku nekk la nga la nga def mooy sa carte la ngay def mais pas li ngay wax te ñoom nii defuñu waxuñu danoo def te kontaan nañ ci liñ def wax dëgg yàlla parce que ñoom bu ñëwee defal nañu waxtaan ak ñun keroog boole ñoo ay nit ñoo xam ne nii chaque jour ils sont là à nous waaw qu'est-ce que lu lu manqué lu keroog euh, keroog dara matul sax mais tere terewul euh, kontaan nañ ci ñoom bu baax quoi. parce que c'est vraiment location de le dire. nit moom euh, euh, euh, boo boo boo ko gërëmul doo boo gërëmee yàlla mu bañ nit ñaa ñii fi nekk wax dëgg yàlla muy Barthélemy ak Cheikh Gueye vraiment ils ont fait un travail extraordinaire de de de proximité boo xam ne ni dañuy ñëw ñoo dëkk ak Cheikh Gueye mais Barthélemy bu ñëwul dafa nekk en voyage ma kii mbokkam yi ñëw nitam yi ñi nga xam ne moom la leen délégué quoi donc euh, c'est pour dire rek vraiment ñun kontaan nañ bu baax a baax a baax en attendant bien sûr d'être encore euh, plus assisté parce que on a besoin euh, soxla nañu évacuation sanitaire u xale yi am ci ñoo xam ne ni seen kii kii ba léegi te d'autant plus que les brûlés là seen seen faj yombul ba pare gaawul quoi alors loolu yëpp xam nañ ko ci am na ñoo xam ne ni ils sont en train de faire des contacts au niveau de la France pour effectivement voir euh, naka la ñuy def avec ma fille qui est là-bas qui qui a terminé ses études et qui fait un stage de sorte que ñu mun leen si jamais on n'a pas d'évacuation qu'on puisse les faire de nos propres moyens